F24 wax moom la ñuy bantuwaat ñeenti ponk daal mooy li nga xam ne moo ñu intéressé benn moom mënta bokk parce que constitution bi leer na newuñ nag ci affaire interprétation constitution naan lii la conseil constitutionnel wax wala waxul conseil constitutionnel ëppul doole 7 million d' électeurs ak 17 million de sénégalais yi nga xam ne prononcé wu nañu woon en 2016 leeroon na nañ. donc newuñ ci lu constitution bi wax ci li ñu ne jamono ji ne mooy mu appliquer constitution bi moom ci boppam demoon na ci kilifa diine yi loolu it ñoom ñu ngi leen di wax ñu ngi leen di ñaan vraiment ñu fàttali ko ko ñu fàttali ko ne moom moo ñëwoon ce ñoom ne leen moom bu defee deuxième mandat pare na nañ ko ko fàttali voilà donc ci loolu lañ nekk ñaareel ba ñaareel ba aussi ñu nit ñu taxaw tem contre li mu bëgg def mooy éliminer ay candidats wax naa ko le candidat Ousmane Sonko ak xëy na la muy jéem ca parrainage bi tudd na ko voilà ak ña cay topp voilà ensuite ñu fexe ba élection yi doon élection yu libre ak transparente mhm. quatrièmement mooy mu libérer xale yi ci kaso bi yéen it mu noppal leen yéen journalistes yi ñu ngi leen di exprimer suñu solidarité yéen ngeen nga noonu maison de la tey ci euh, booy xool euh, classement Sénégal ci liberté de la presse dafa perdre plus de cinquante places yéen a ñu ko yëgal mais lu ko waral may ku yëngatu ñëw ñu tëj la voilà ba ci soxna si nga xam ne mu nga ëmb ba diis kon euh, bracelet électronique yi ñu andi woon lu ñu koy doyee nañu ko libéré moom ci boppam ba noppi libere tous les journalistes boo jiite réew da ngay muñ moom lii mu doon lii ngeen di wax ba mu ca tolloo loolu lañ doon commenté aussi moom la mu doon wax moom président Macky Sall la mu doon wax président Abdoulaye Wade mu ngi fii tege mais da ngay muñ nekk démocrate voilà nangu dem compétition bàyyi ku nekk nga compétir mais sénégalais i tànn ki leen nekk plateforme bi nag loolu la wax. d'après les da ngay jot ay menaces ba ñu ne ay mais wax nga joo wax naa ko sax bien sûr suma téléphone beeg nangam nangam mais loolu. lu dul yokk ma jokk ma farlu euh, du ko def parce que man militante la voilà man du ma ku ñuy xoxatal du ma ku ñuy ragal loo au contraire tey laay gën a wax seen deal boobu da leen ca métti nag xam naa ko da leen ca métti mooy wan nañ ko sénégalais ils ont été démasqués voilà am nañu droit bu leen neexee ñu dem ànd ak président Macky Sall encore une fois seen droit la en tant que parti waaye waruñ ma woon a taafantoo nag man Aminata Touré benn nit ci parti bu ñu créé depuis cinquante ans waaye loolu sax du li ëpp solo li ëpp solo mooy lii suñu coordonnateur bi wax Mouhamadou Mbodj quatre points yooyu président Macky Sall waru la bokk président Macky Sall dafa war a arrêter di éliminer ay candidats quatrième troisièmement président Macky Sall dafa war a libérer les prisonniers politiques mooy journal yéen ci ngeen bokk sax mun nañ leen cee boole journaliste yi quatrièmement mu organiser ay élections yu libre et transparent dialogue ba nag la ñu ca wax mooy man li ma ci xalaat bu dialogue manœuvre la moom ak PDS ñoo ko co organiser ku fa toog toog it ñay dem ñu xam lool ku ko signeelul ku ko signeelul ne am na droit nekk candidat nañu ko nar a waxee nag voilà euh, parce que sant nañ ñu xaw a jaay xel mu rëy ne waaw yaa que le conseil constitutionnel moom moo mën a euh, voilà autoriser nit ñi conseil constitutionnel président moo leen nommé ñoom ñëpp ñoom ñëpp président leen nommé kon nag nit ki bu la abalee ay bëtam fa mu neex foofa fa mu ko neexee foofa ngay xoole te conseil constitutionnel ëppul maqaama ëppul doole ñun sénégalais yi nga xam ne ñoo génnoon 2016 voté constitution bu bees foofu la ñu toll ah ñëpp ñuy woo aussi euh, démocrate yi ñu ànd doon benn ànd doon benn parce que li nga xam ne moom la ñu taxaw ne du am sunu intérêt la en tant que citoyen mais sunu avenir doom ak i sët la Sénégal est connu pour être un pays de démocratie. Démocratie ancienne. Et c'est par cette démocratie-là que le président Macky a été élu. Je vous rappelle qu'il avait été convoqué euh, au commissariat en Si le président Ablaï avait persévéré, mais il aurait été déféré et il aurait perdu ses droits, il n'aurait pas été candidat. Si le président Macky Sall avait arrêté tous les journalistes, avait arrêté ses collaborateurs, mais il n'en serait pas là. Donc nous lui demandons d'appliquer vraiment cette même liberté qu'il respecte cette même liberté démocratique qui lui a permis d'accéder au pouvoir. Et qu'il sache que seul le pouvoir de Dieu est éternel. Seul le pouvoir de Dieu est éternel. Voilà, et il a encore le temps de se rattraper pour nous dire rapidement qu'il va respecter la Constitution, qu'il libère ces jeunes, leur place n'est pas en prison, qu'il arrête de persécuter les journalistes et qu'il arrête de vouloir éliminer les candidats.